bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokku internet ñu ngi leen di bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen tey di mardi 27 décembre 2022 mu mel ni ki nag namoon ngeen ñu waaye ñoo leen raw ci revue bi mais nag feet yi la woon mais balaa ñoo sori nañ leen bàyyi ngeen seetaan te déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat. bisimilah ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yëglikaay yi nag tey boo bëggee dégg dëgg maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk tey xëy fu ñu génn moo xam les arènes la ca vidéo ya moo xam suru làmb la moo xam recours la ba ca lit tiifee fu mu ci mën a doon rek képp kuy wax ci làmb daal tey xëy nga indil ñu booy Niang mi nga xam ne démb mu ngi doon open press booy Niang nag sunu làmb nee na démb daal ci open press am boo bëggee dégg dëgg Alsaan Jigo moom maanaam ki nga xam ne nii daal moom moo di Boy Niang lam fa wax Balla Gaye numéro 2 leer na nee na ko bu dimanche daal le premier janvier boo bëggee dégg dëgg ko man su na ko bu bëggee dégg dëgg daal loolu mooy li nga xam ne nii mooy mooy li ma lay wax ambiance ba nag foo ko takkoon weesu na ci xumbu téef mel ni kii nag ba tey bu nu continuer càppaacoo li ba daal bu bëggee dégg dëgg daal démb wane na ne moom mu ngi ci forme ndax 100 mètres ya nga xam ne mu ngi ko doon daw loolu tamit boo demee da nga ko fay fekk ay xel méttee métti di wane ne moom mii daal physiquement pare na mentalement mystiquement côté bépp pare na te itam nag waa Pikine démb jox nañ ko drapeau Pikine ne ko demal dimanche jàkkaarloog waa Géejawaay yaa nuy représenté mel ni ki nag buy dem itam wala boog démb bañ koy jox drapeau ba moom am na ñoo xam ne ñu ngi leen fa doon xaar waaye gisuñu leen muy Eumeu seen ak nga xam ne moom moo di Ama su sunu làmb moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu soq moom lu mënta xew moom daal démb gis nañ ko fa nga xam ne ni moom moo doon ca mbir mu mel ni noonu loo cay dem ci sunu làmb la ne samedi la nga xam ne moom la waa yaram events tëggoon muy gàmmu gi ak tafambër làmb ju neex waaye grand combat ba nag moom bu bëggee dégg dëgg maanaam daal jeex na ca na mu jeex nag gàmmu gi moom moo gañe ka nga xam ne nii moom moo di tafambër tey nam ko gañee nag maanaam da koo moy jàmm da koo koñe daal gañe ko mu génn saaku ya jël ay avertissement làmb ja jeex tafambër ñàkk combat ba moo tax yëglikaay bi xamuñu ñu ne daal gàmmu moom tegle na onzième victoire am wala boog am na onzième victoire am xam ne daal ba muy bëre ba tey dajaleegu na ko bët set dimanche Baba Diaw ñëw wàcc arène nationale moom itam lépp di ay grand combat leneen loo xam ne nii wala boog bés ba moom général Malika war na fa boppam ka nga xam ne moom moo di Bour Sine donte itam nag dañoo disqualifié buur siin ñu ne déet ne waay Doudou Sané jàpp booy mbuur dal di ko an dal di ko sànni fële mu jaaxaan ñu ne déet ne waay Laurent njagook ak Alliance Baldé xeex xeex bu méttee méttee méttee métti waaye xeex ba nag fa mu mujj daal moom moo di kii di Laurent wane ne moom bërekat bu mag a mag la jàpp ko fëgg ko ca xabal mu jaaxaan Bou Siteu moom jamono jooja dañ koo daan jël bu rëy moo tax nag mu jaare fa sax na moom ne day bàyyi la nga xam ne moom moo di lamb tafaa leer daan àllaa ji gaynde mel ni kii daal bés booba daal bu bëggee dégg safoon na sàpp lool booy sin da booy sil daanaka nga xam ne moom moo di Fourrière bu grand Yoff waaye nag grand combat ba combat ba nekkoon ca kaw ñépp doon ko xaar moom moo doon Jackson Junior bu Guédiawaye yëglikaay bi di sunu làmb nee na 48 minutes wala boog 4 minutes 38 secondes daal la Jackson Senior jàpp ñaq jariñu wan ko la nga xam ne ni moom moo di lu méttee métti duma ko daan ko du samay wax yëglikaay ba wax moo ko wax nee na nag Jackson Senior daal nee na ah bu fekkoon ne Modou dañ koy wëralab seex ci làmb ji nee na ku yebu nga jàpp Jackson moom moo di ab seexam kon Modou am na seex ci làmb ji du samay wax yëglikaay ba moo xëy wax ko moom sunu làmb ba tey bu ma fa jógee dem record record tamit ñëw na ci Jackson nee na daal bu ngeen bëggee dégg dëgg làmb ji Modou loo bu bees judduwaat na fi fa mu dëkk nag moom moo di géejawaay nu ñu koy wooyee moo di Jackson Senior ba tey record a xëy di ko wax jàkkaarloo bi nga xam ne nag moom moo waroon a nga xam ne nii moom moo waroon ca TFM diggante Balla Gaye ak Boy Niang bërki démb ci te la nga xam ne nii moom moo di mbir ma mujje yàqu wala boog daal benn adversaire ba mu mujjul ñëw muy Boy Niang yëglikaay bi record ñëw na dinu ci dikkal bu baax a baax mel ni ki nag Balla Gaye moom la mu xëy xam ne daal nee na boo bëggee dégg-dégg lii moom doon rafet te teguwut ci aw yoon te itam su sax day dàq ay sponsor du sama ay wax Balla moom moo waxe nu mel ni ki noonu ba tey mbir mooma boo bëggee dégg-dëgg bu nu demee les arènes mel ni ki nag ka nga xam ne moo di Abou Ndour woo na promoteur ba di ka nga xam ne moom moo di Makan Mbeng ak ñaari menaat saya père Bourkhane waat ma yore Boy Niang ak père Babou ma nga xam ne moom moo yor Balla Gaye ñoom ñett ñëpp ku ci nekk maanaam waxtaan nga ak Abou Ndour boo demee les arènes ca mbind ma da nga ko faleer ku ci nekk la nga wax leneen loo xam ne ni ñëw na ci moom mi nga xam ne nii moom moo di les arènes muy jàkkaarloo bi nga xam ne war naa am le 7 janvier bii nu jëm diggante Tapha Tine ak ka nga xam ne moom moo di Bombardier mel ni ki nag kon boobu combat itam fi mu nekk nii ah boo bëggee dégg-dégg ku yeboo xaar ko Gris Bordeaux moom la mu xëy xam ne ci les arènes daal ca mbind ma ak Abu Ndour giri daal nee na boo bëggee dégg dëgg forme ba mu andi woon contre Ama Bal contre Balla Gaye su ko andiwaatee contre Ama moom rey ko sax la ko war a def kon giri daa d'accord ne forme ba mu andi woon moom maanaam baaxul saafur door ba ca Niger nag les arènes dikkal nañu ci dañoo xam ne daal ñu ngi ca ñeenteeli journée ba tey mel ni kii nag maanaam daal mbir fi mu nekk nii ñu ngay doxal ca Niger loolu maanaam ca dëkku Niger lay bu nu fa jógee dañuy dikkaat sunu dëkk jeexale fi yëglikaay yi mel ni ki nag les euh, sunu làmb la ñuy dem ca tuus ya la mu xëy xamal ñu daal làmbi simple ja donte dóor ba mu ngi doon yëngu bu baax waaye simple ba mu ngi doon yëngu ndax dëkk ba ñuy wax xalambaas ki nga xam ne moo di wës jàmbaar bu yaraax moo fa rajaxe rajaxe daan ko la def jaar ci koom jàll rajaxe mbër daal wës jàmbaar moo ko daan ñu ne déet ne waaye Modou Jam Téeri jàpp ordinateur moom itam di Modou Fay daan ko bu rëy fa nga xam ne ni moom moo di ca dëkk ba nga xam ne moom moo di biibaan nduunduur moom boo bëggee dégg dëgg ka nga xam ne ni moom moo ñëw wanewaat boppam ñu gënoon koo gis lool moom moo di gaskel jàmme moom retour gagnant la def loolu ba tey yëglikaay ba xëy na dinu wax lu mel ne ki noonu jërë ngeen jëf kon da ngeen yëglikaay loolu lañu xëy tey indil muy sunu làmb record les arènes li TV fu nekk rek fépp fu yëglikaay làmb xëyee tey loolu nga ñu indil mais balaa maa sori rek damay bàyyi abu mu nuyoo parce que nag bon gëj nañoo pelone depuis vendredi ou samedi ak wasalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Babacar yow yoo maa ngi lay nuyu jaar baax mm-hmm. euh, di nuyu Mansour di nuyu Ablaye di wax ne effectivement fête bi la woon fête mm-hmm. bi euh, lundi bi moo doon férié moo tax démb revue de presse amul waaye mm-hmm. ñu ngi leen di waat bu baax di yaakaar ne am passé nañ ay fête yu neex neex bien sûr nañ ko day ah ci côté làmb de ñu neex na waaw parce que bu bëggee dégg-dëgg mm-hmm. lépp ci làmb dox na ci weekend bi moom mm-hmm. simple baak dóor baa mm-hmm. ak jàkkaarloo yi mais abu man balaa may sori balaa balaa ñuy sori comme li wax rek parce que dañoo bokk ci réew mi doonte day ay niti làmb lañ di wax ci làmb waaye dafa am yu ñuy gis xam nga dafa am lu fi gisoon fa ne assemblée ba dénoncé ko ñu bëri waxoon ci mooy député yi or nekk fa au lieu ñu défendre réew mi mhm. ñu fay tudd kilifa diine ba mhm. muy indi xeex mhm. ba góor jóg di dóor jigéen ba plainte am ci ba tëj kaso du ci am mais loolu day continuer ci réew mi toujours ci réseaux sociaux yi gis nañu ay nit wala sax nit kuy génn di wax di jàpp ay kilifa seeni doom seeni soxna leen wax ay wax yoo xam ne abu wax yu doy war et puis ce que mbir noonu la war a demee est-ce que yàlla bi muy wax ne Babacar mi dafa njaaloo est-ce que dafa waxoon abu ne ko da ngay ñëw ci mbedd mi rek ne Babacar day jaamu est ce que noonu la demee woon est ce que waruñoo sàngante sutura est ce que waruñoo am ay teggin. te mm-hmm. ku ci nekk man ma bañ a nangu abu ñàkkal ma fayda abu bañ a nangu Babacar ñàkkal ko fayda. ñun ñu xam ne ay nit la ñu quoi. Mm-hmm. sa moroomu nit waru la jàpp bëgg la def morso feebaru kaay yi dañ ci am part bu rëy a rëy waaw xam man de li ma jox sëñ Babacar mooy. Mm-hmm. juge jugement moom nañ ko bàyyee yàlla. xam nga yàlla dafa am lu mu ñu wax ne nañ ko def ñu si góorgóorlu. nit ku mat amul. te nit ku nekk. boo xoolee si si sa bopp am na ci ci sa bopp loo xam ne bëggoo ku ko wax. bëggoo ku ko tudd bëggoo ku ko wane. loolu nit nit ku nekk loolu la te yàlla nee na. Mhm. ku dul suturaal sa sa moromu jaam bu keroogee yomal xam du du du. am na yenn yoo xam ne boo xamee si nit. Mm. ma xamee ci Babacar sax. waaw ba mu leer am na bañ ko wax sax mooy moo mooy maandu ci man. wallaay mooy ma génn di ko wax. ñeneen di si jot loo xam ne. Mhm. xamuñu ko mooy société bi dafa am mel. foo ñu sangat ko doy na war de wax sëñ bu moo ko doon wax dañ ko mm-hmm. sangat mm-hmm. mais dafa jot nag sëkk waaw pour ñu pour ñu pour ñu sangal ko seen Babacar na na nit ñi fóotaat xool yi. xool seen seen bopp seetaat jikko yi te defar jikko yi baax defar toogaay yi. par parloo bi daal tax na ku nekk fi mu nekk nii far naag na ma lu ma neex laay wax te àddina du loolu. nañu gëm ne ay nit lañu ay mhm. jaam yàlla lañ. Mhm. dañoo war a dox comme ni jaam di doxee. juuru yow man xam dafay am di sëñ Babacar. ah loolu daa jar a dañ ko xel waaw dañ ko bàyyi xel fii. c'est que boo nekk xam nga buñ toogee ni di wax. maanaam xam nga rek da ngay yaakaar ne yow doo fi jógee. waaw loolu ngay jàpp. boo feebaragul da ngay yaakaar ne feebar amul. Mhm. waaye bis bu la dara dalee. ah. te nit sax lekk na ba suur sëñ Babacar. waaw da génn def def deux pas yàlla jël. yàlla wala nga dem fële ca jànn sa gis la fay xew. wallaay nga xam ne ña fa tëdd. Mhm. gënoo leen. man de sama juru jigéen dem na. te moo ma gën fukki yoon ak juróom. yàlla na ko yàlla yërëm ndax moom laa jaari ñëw àddina yàlla na ko yàlla jéggal. man sa sama ñaari waay juróom yàlla jël leen. te keneen nit la fa jëlee. yàlla leen yàlla jéggal du bàyyi kenn. voilà yàlla na yàlla yërëm te nawee gën ñëpp te dem na wala kon am na solo mhm. nañ dellu si xel yi mhm. abu léegi ñu ñëwaat ci suñu si muy làmb ji mhm. làmb ji moom boo bëggee dégg dëgg fi kenn bi dafa jax waaw ndax nag jàkkaarloo booy Niang ak Balla wala open press Boy Niang démb booy Niang daal démb yëngal na ibam Alassane Djigo moo ko waa Pikine waaw dëgg la jox nañ ko drapeau Pikine ne ko drapeau boo nga am noonu waaw na nag Balla maa ngi maa ngi yow dimanche ku mën waaw na jël bakkan commencé waroon dund rek bàyyi jël sa bakkan wala ma jox la sa mbos waaw li mu wax de man de déw moon yére de moon sëñ Babacar waaye nag li ma gis si vidéo bi mooy daal dèjà indi na musique ku ko xool mhm. li mu sol ah kuy ñëw open press war ci sol lii moom waaw loolu am na lu muy ba pare kanam gi boo ko xoolee bu bu bu yaa ngi xonq cur mhm. bëri xonq yi mooy sangu yu yu métti yu bëri. affaire ba saf na. waaw mooy tax waaw mooy tax ma dugg ci yaram ba kon non dafa sangu dafa sangu macha allah ba pare indi na euh, gis naa boroom kagul bi mu indi te loolu Balla Gaye lañ ko xamee woon jaaru tooñ boobu man daal li si ne si combat bi ba pare moom nag fecc bi mu fecc ku ku nekkul en ko fecc. daw yaa gën a métti ah, am ku nekkul ah gisuma ko ku nekkul en confiance yow doo ko fecc mooy mooy boo ñaa pare na ni ni mu ko waxee pare na alsan jigo na mu toll dem xel yi mu koy daw di ko wër moom kay wax dëgg yàlla physiquement moom non pare na moom loolu waaye mën a wax moom pare na ah, te li ma gis li ma fooyee si wéwu bay tamit Balla Gaye da il va faire la même chose avec euh, gi Guédiawaye FC non déggoo li nañ foofu ba. supporters yi ñu jox leen ordre pour supporters yi ñëw indi drapeau bi indi maillot yeeg yëpp. kon daal combat bi daal sëñ Babacar yàlla na ci jàmm incha allah. yàlla na yegg ak jàmm defante la defante la. Mm-hmm, mm-hmm. mais mel ni nag absence su Eumeu Sène ak Ama Baldé journaliste yi évoqué nañ wala boog nit ñi évoqué nañ mais bon xëy na nag ay teq-teq la. waaye bu na xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk Pikine. waaw waaw. man avance Ama Baldé man dama koy comprendre Ama Baldé barki ah, waaw vraiment la jóge ci a bëri bu na ne mbër bu nekk bu nekkaan ci mm, génne bëriwul même mm. seen i gëwuma sax na mm-hmm. loolu ku ne xam na loolu ku xam nga ne mm-hmm. mbër mu nekk ci contrat barki dem face à face sa génne dootul bëri dootul bëri Eumeu nag gis naa ko mu génn ci euh, Zambala mm-hmm. waaye ku ne xam ne diggante Eumeu Sène ak Boy Boy Niang ni mu mel. ni mu mel donc bu ñëwulee euh, dama jàpp. dëgg naa dafa dem Casamance. voilà boo daal dafa ñëw wala dem nekkoon mais. gi gisuma goo ma ne dara lu ñaga seen diggante noonu. face to face bii mu mel ni bërki démb. bi mu yàqoo am na loo ci bind woo nga mënaat say. waaw woo nga la promoteur. bind nga ci waaw loo ñu mën a nettali. waaw parce que Babacar loolu image bi moom moo moom moo ñaaw. parce que xam nga làmb dafa am fu mu toll woon bu gars yi commencé ñëw ku mel ni suñu père Gaston Mbengue mhm. commencé xëcc ay sponsor di leen indi mhm. bu gars yi bëgg a ñëw ñu bëgguma tudd sax mais mën na leen a tudd ay wan ah, exhibit ay di di sego bay ko may téléspectateur Sénégal kenn kenn du fay ak yooyu mhm. ñooñu Babacar bu ñu ñëwaat ci làmb am na loo xam ne waruñoo warul mën a man nag la ma fa kii mooy la ma jaaxal mooy ñoom ñaari managers yi ñoom ñu si suñu Babacar CNG ne avenant ku nekk engagé mbërëm pour xaan wadd engagé Boy Niang Père Bassirou Ba bu engagé Balla Gaye kon ñoom ñoo engagé ne suñu ñaari mbëri dañuy ñëw teew mm-hmm. parce que loolu buñ ko buñ ko bindul woon sax ñu mën a mais ñoom ñoo ko et puis par bi man mënuma koo dégg parce que pour Babacar nekku moon Dakar dama génnoon am sa manager signé mu leer na ne heure war na la fekk TFM ñu jox la xaalis bu dul jeex nga war nga war a teew nga nekk un professionnel nga génn jëloo say matuwaay dugg si Dakar ba heure bi heure jot ba bala dugg si ba temps bi mu def yëpp ba mu buy kii nga woote loolu man mënu ma ko gëm. waaw loolu daal man manque de waa am na lu si ne daal. am na lu ñu gisoo am na lees waxul waaw. am na ak lees waxul waaw ah, am na lees waxul am na solo abu li nga xam ne wax nañ ko moom ba mu jeex mooy. Hmm. ki nga xam ne moom mooy ñoom ñooy waaye waa Yaram Events. Hmm. dafa am bër gàmmu gi. waaw mel ni ki Tafa Mbër nag gàmmu gi gagné na ko. waaw bu bëggee dégg dëgg daal gàmmu. Mm. fi mu ne nii dugg na ci fukkeeli ndamam ak benn. waaw waaw waaw am na solo et puis combat ba tamit xaw na yomb ci moom parce que Euh, waaw Tafa daal fan ko doon xaar wane wut lenn loo xam ne wax dëgg yàlla day daan wane dara parce que bëri bi du xeex bi nag gis naa sax muy def yëfu cuura yoo xam ne euh, ay jël ay attaque yóotu yoo xam ne suñ ko dóoroon benn rek dafay daan suñ eh, gis naa sax yow yow yaa ngi koy wax ah, parce que yow jëlu yóotu njool mu tolloon ngay jël di ko yóotu et puis amoo boo la dóoree rek ku peñ nga daan ko xam naa nag bësu bësu daanu moo dul bësu ndam mhm. waaye li muy nikar daal laa daal naa dem xoolaat boppam xaw ma nu ma préparé woo waaw waaye maa ngi wax mbëri waaw seen préparation nañu privilégier contact waaw contact da may repères yu bëri. waay waay du dem salle de musculation. du ay din rek. mbër boo demee salle de musculation. Mm-hmm. dem din. Mm-hmm. am na maa xam ne sax nga war a bàyyi salle bi. wàññi ko bu mm-hmm. baax a baax a baax. te privilégier les contacts yi. parce que moo lay may repère ci biir bëri. waaw waaw waaw rafet donte nag rafet nañu nag ci biñ taxawee. taxawaay non ñoom ñaar kay taxawaay boobu nga xam ne entraîné na. waaw waaye daal li ma wax. mën nga entraîné

ah bu dul Siteu Papa Sow. Mm-hmm. te Siteu sax xay na si tax Papa Sow ñu ne woon tête d'affiche ba. Mhm. moom mhm. yi mhm. mu ngi ko gën a fees waaye combat bu ay combat yu ko dàq ndax Alliance Baldé ak ak ak Laurent dafa doyoon. bëri ba rëy waaw man vraiment Alliance Baldé Laurent Ndiago maa ngi ko suubil ah. ah, parce que <laughs> sincèrement. la mu def euh, euh, euh, góor dëgg moo ko def. et puis bu bëri jotee la bëri. waaw ba ba mu waree xeex dafa xeex waaye bu bëri jotee dafa dafa def lu leer. Alliance Baldé it ñu ngi koy ñu ngi waaye daal la mu fa def bon booy mbuur li koy booy mbuur nag pourtant li li mu doon bëre sëñ Babacar moo doon bëre bi mooy appel gauche dóor dóor droite loolu laa gis mu doon def hmm. loolu nag loolu rek la waroon réussir su ko réussir oon rek euh, dina am lu bëri mais benn moment du xam nga la du dafa changé pied am nag bi ci la lu mu doon def waaw pourtant nag dama jàppoon ne bi mu changé gauche ci ci ci la ko gën a jege bi mu tegee pied gauche si la gën a jege booy. mais du gaaw a moom bu ah, du ma ne du ma ne il a mal parce que xam nga ilaa maa lite c'est par rapport ay stratégie xaw ma lu koy saafam digal mm-hmm. waaye li mu man man man man dama ko xeeb général Malick waaw lu tax ma xeeb ko mooy mm-hmm. général Malick ñu ngi ko xamee mbëru mbapat mbapatkat la waaw donc ñu ngi doon xaar ci moom mu indi bëri comme li comme li euh, euh, kii def Doudou Sané mm-hmm. mu indi xeex moom dégg naa si bi nga ko jël réaction mu ne dañ ne woon da nga mën xeex dem mais du question wane kan mooy kenn du laajte kan. moo dàq ah, xeex kan moo daan la ñuy laaj nekku daan na ko dóor na ko dóor métti ah. mm-hmm. dafa mm-hmm. rocc gauche bi ah, de balle loolu loolu bokk équilibre ko rek mu ñëw maa ba ba général mu wër ko noonu la ma doon wax si Bombardier la si général Malick dafa manqué équilibre waaw loolu nag boo ko amee da ngay xel ni privilège bi dafa am doole Ah. dafa am doole dafa développé trop mais gis nga rëppee li mu doon rëppeelu mm, rëpp na ñaari yoon ñàkk équilibre bi la te loolu boo ko defee mbër mu gaaw daf mën na da war a invité waaw am na solo waaye Jackson Dore moom beneen affaire la suñu bopp ah gars yi nañ mutuloo na de bu gars di compté nag mbër nañ ko suñu lamb wax na ko nañ ko compté wàlle euh, record wax nañ ko te man defe naa defe naa may ki ko njëkk a wax ca Leewtoo Pape Ndoye ba daan ko ma jëli ko. Hmm. laa leen ne li may gis ci Modou Lo. laa gis ci xale bi dafa lambe de sëñ Baba. lambe ba muy tuus laa ko gis mu ngi ràngoo sërëm bi sëru dënk bi. mais bu la wonee gannaaw. waaw li li sunu père euh, euh, kii euh, Birahim Ndiaye doon wax ne xottu taat mbër dafa am xottu taat <laughs> ngeen baal ma ci wax. mbaaru xottu taat yi daal toogukaay yi moom dafa di dafa di mbër dafa lambe. daa ba pare ba pare mën na xeex mën na bëre. lay attaque ba pare am la am fayda et puis vraiment mbër la mbër la de. li mu dóor parce que dóor na xeexe ba mu kii bi ko waaj dóor mu dóor ko tànk tànk boobu ku mënul bëre du ko def lay dóor ko ñàkk ñàkk ñu jàpp ne daanul mais dafa daanu fii fii moo laal suuf man gis naa ko appel laa ko doon xoolaat léegi ni ah. mais foofu moo laal suuf moom ñàkk ah. ji ñàkk it du indiwul fa ñàkk fayda wala ñàkk jom bëri na waaye nag loolu lay la dogal mm-hmm. Jackson Senior kon yoon woowu nga tege bu ko mm-hmm. bàyyi de bu bëggee dégg dëgg ndax nag yawa daa métti de. waaw bu ñu la nee yawa. waaw ah abu am ngaw sas. surtout nga nekk géejuwaay. waaw géejuwaay nag daa bëri ànd ak yow ku mel ni Balla Gaye ne fa. waaw saa cee ne fa guy am na solo. waaw léegi ñu jeexale ji ko ak les arènes. waaw ñëwal nga ñu ci Gris Bordeaux waxam bëri ki démb. waaw ak li nga xam ne nii lool moom traité nañ ko sax mooy. waaw face à face bi traité nañ ko mais kon dañuy ñëw ci Gris. Gris bi Taphatine bi ak euh, Savre ba ca Niger. lu gaaw lay doon sëñ Babacar xam nga Gris Bordeaux keroog dañ ko posé question mu ne Euh, def naa tax mooy bi bi bi bi ma ko ne yëngu bi nga yëngu ak oyof bi nga oyof lu ko waral lan moo kàccew derrière euh, kii boobu si la wax ne su su indiwaatoon forme bi mu indi woon kon Balla Gaye 2 dañ ko war a rey. Hmm. loolu nag la muy wane mooy la muy indi koon Balla Gaye baaxul. ba fii wax ko donc ku ne xam na ne. Hmm. donc loolu mu wax kon loolu nag dafay wane ne hmm. Balla amaay na na bàyyi giri xel. donte magab yooyu na ko bàyyi xel. face à face euh, ak kii. ba ñuy soog a def seen première rencontre boobu combat bi kenn gradé ko. bien sûr kon boobu présentation la woon bii nag. Mm-hmm. face à boo xam ne yeneen mbër yëpp yu bëree dañuy ñëw. dañ ciy bokk janvier la doon dërëti bi. Mm-hmm. bu ñu ba Niger foofu tamit depuis samedi seen 43e édition bi mm-hmm. mu ngi daw quatre-vingt mbër la woon xam nga huit régions yi ku nekk da nga indi dix muy quatre mm-hmm. mm-hmm. waaye dem nañ ba léegi seize des tey tey tey mardi bi ñu commencé huit heures mm-hmm. seize mbër a des waaye nag fa favori yi fa nekkoon yëpp muy euh, Yakuba Adamu muy muy Aybo Assane muy muy Isaka Isaka muy Noura Hassan mennum si Zakirou Zakirou rek moo daanu moo daanu waaye favori yëpp ñu ngi ci biir waaw ba léegi waaw am na solo waaw looy tàggatoo internet xanaa gërëm ñëpp seen Babacar euh, sant ñëpp jox ñëpp dig ngoon si waaw léegi kay kay neel si kanam léegi dañuy dem géej waay léegi open press parce dem li li ñu daloon dem dal ñu tey moom kay bu ñu paree xam naa ne bu soobee yàlla mm-hmm. dañuy def nii rek uti liggéey waay lu ñu fa forforale ko fa en attendant xaar open press bi commencé kon di ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. mais di waa Pajarsen parce que nag li ma sol tey mm-hmm. jib seen borom teranga production moo ma ko moo ma ko solal blouson lay kees bu rafet bi xam naa nag Euh, Mansour benn parce que Mansour nag mooy ne ci vidéo yi di ko monté. indi sax Ablaye benn sinon du dootul monté su Mansour jotul dootul monté. non yéen ñëpp ay sonn <laughs> loolu maa leen ko promettre Teranga production ah, noonu la demee Jib la hmm. ak DC Omar Sall. ba suba incha